mu Moudiaby Gassama ci Trucs et Astuces maamu lan ko indi tey ci Trucs tey nag euh, ñi am yéene rek fan la nekkoon. waaye sa fiyetoo non non aussi lu mu bëgg histoire. non non dafa tër de dafa daa bëgg ma kiyanteen moom fii loolu la bëgg daa bëgg ma ma ma ma cookanteen moom fii ci plateau bi yooyu lay cherché nii lay def de naturellement. daa bëgg xamul daa bëgg xam xam nga loolu la bëgg <laughs> waaw wax ko ci pet mais daa bëgg xam na ma wax ko ci kaw fu ñëpp dégg. waaw dafa lakkale yow mais mais Adja xam na fi ma nekkoon. ndaxte jege naa ko woon lool maa maa yoon fii rek di def euh, yëfu jigéen. su paree mu ne ma yow laa faral nag ah. su paree mu ne ma maamu nga jël moom nga jàpp dem faral bàyyi ma woo. dëgg la merci beaucoup. waaw Fatou am. <laughs> Euh, merci. <laughs> maam mu tey Trix Assis dem nga ci indi. <laughs> waaw <laughs> <laughs> Sofia ci wetu Adja. waaw ci wetu Adja justification jaru ko. jaru ko ah kon ma bàyyi kii dafa rakkale. kii non Sofia. bu paree danaan ma xool ah yaa kii yi nga faral ko Sofia daa fiir Sofia daa xam naa daa bëgg a animer plateau bi bëgg a ñuy da ko da ngaa faral kii da ngaa faral <laughs> <laughs> bëgg rek <laughs> plateau bi bëgg a xumbal plateau bi kese xam naa bëgg ñuy mm-hmm. am divertissement tuuti rek et mm-hmm. puis day méngoo aussi ak euh, la nga xam xamante ne moom laa wax a waxtaanee mhm. parce que mooy euh, ana loo war a def ngir rek nga am journée bu neex journée bu mucc ayib. Mhm. comme euh, Sophie cokkaas joie de vivre joie de vivre. Mhm. Sophia cokkaas nañu ñu xaxataay ree man yow ak Mbaye Babacar. waaw ci ba tey euh, sa waaw day tax sa journée bi merci beaucoup waaw sa journée gën a neex kon lu am solo la. tooy nag loolu laa war a waxtaanee faatu mais bu ñu nee war am journée bu neex da nga ko war a démarrer avant veille bi. bien mhm. koy démarrer parce que avant munoo mhm. bàyyi ba jour ji jour ji ak si nga ne da ngay da nga am jour bu neex bu neex. Mhm. nga commencé di wax lii ak lii laay def non non da koy planifier avant le jour ji. ci veille bi. pourquoi pas. Euh, lépp la nga xamante ne exemple bu dee da nga war a xëy bu dee jigéen ñi nga xam te dañuy dem bureau wala dem entreprise xëy. lépp la nga xam te dañ ko war a sol. nga préparé ko. li war a sol donc war a def avant. merci. Mhm. avant le jour ji nga bañ def comme sama genre. genre waaw ne euh, day wala genre ñoom nga xam ne dañuy ñëw rek jaxase <laughs> euh, <laughs> yëpp mu ñëw armaat bi. waaw yére yëpp boor bi topp ko. waaw merci beaucoup xam nga yére yëpp topp la. waaw nga stressé wu parce que loolu après da lay topp. mais bu mhm. su fekkee danga ko def avant le jour ji ci veille bi. Mhm. nga ne ah man de lii laa bëgg sol demee. lii ak li laa bëgg a sol nga génnee ko teg. dàll bi nga bëgg sol nga génnee ko teg. sa sa kaabe ba nga xamante ne moom nga bëgg a yóbbaale sa bërëb liggéeykaay nga teg lépp bu dee ay say perruque la aussi. Mm. xam nga ne la yéen jigéen jigéen ñi ñu changé. perruque bu dee col yi ngeen def ñun bu dee perruque yi. bu dee bu bu dee voile la <laughs> aussi. sa voile ba nga xamante ne. nga ko. <laughs> bu dee voile la aussi nga xool ban voile nga bëgg a euh, def de le lendemain ban couleur la ban euh, ban façon tissu la lépp. ça mm-hmm. dépend mm-hmm. euh, lépp nga teg say say say bracelet xam nga mm-hmm. bijoux yi nga yi nga war a teg ta takk lépp nga teg à côté. loolu ci organisation la bokk tamit merci ci organisation la bokk. lépp nga planifié teg. nga ne ah bëgg naa xëy telle heure le lendemain bu dee sama genre xam nga dañoo ñemee tardé. yow xam nga ci dara. <laughs> mais mais boo préparé euh, sa journée rek. Mm-hmm. Euh, euh, retard bi yëpp du bëri su boobaa même booy tardé sax day doon exceptionnellement du doon tout le temps. waaw parce que mm-hmm. day wane ni kii day programme bu baax a baax mm-hmm. le lendemain jour ba nga xam te war na xëy. léegi nag lépp lépp boo ko defee nag yow su boobaa da ngay ñëw rek le le matin. sangu rek bi fait bu dee da nga war a tàngal sa biir tàngal de préférence sax nga ndékki sa kër avant ngay quitter mais boo ko mënut aussi boo xasee ba agsi sa bureau. nga mhm. nga ndekki parce que ndekki day tax journée bi nga mun a am nga nekk am bon état. Mhm. donc boo jógee le matin lépp préparé nga ko da ngay génn da ngay ñëw rek sol. Mhm. même su fekkee sa sax xaw nga biddante sax. mais doo stressé wu parce que xam nga li nga war a sol ba pare. mais imagine Fatou su fekkee ne tey yow tu n'as rien préparé. nga biddante ah. stress boobu day da ngay jaxasoo ah. dalay lay topp toute la journée da topp fii la sa féeti ñëw naan ay eh, kii eh, ano kii jëlal eh, da ah. bu rose <laughs> crayon crayon ak ak kii bi pose bi xef bi. lépp ko. waaw moom du muy séddee ñeneen ñooy parce que euh, on n'a préparé. kii nu mu. c'est parce que. damay hmm. damay tailleur damay tailleur bëri ay morom sax man mii commencé ko man mii sax. voilà man c'est c'est ça mon problème man damay tayal a maquillé wu <laughs> mais euh, beneen problème bi ñu wax mooy euh, problème mu sol yére man aw ma j'ai pas problème man tant que sanguwuma mm. ba pare du ma xam lu mooy sol am na ñoo xamante ne dañuy préparer man j'ai pas parce que tu tax tam nga génn ci guddi gi mm-hmm. ça arrive pourquoi parfois da ngay dem jël ba pare nga yeewu nga sangu pare nga bëgg a changer waat loolu nga mm-hmm. xamante ne jëloon nga ko ci guddi gi mm-hmm. aussi c'est ça c'est mel noonu y a des gens bu dañuy xëy maquillé te seen maquillage du baax <laughs> loolu kan na yow lay waxal ma man naa ko naa ko boobu ma toogee yow mis naa ko ci moom man moom boo ko euh, waxee da nga xam après <laughs> bien comprendre léegi nag euh, mu doon la nga xamante ne euh, boo ko préparé avant le jour J comme li mu wax rek xam nga yaa déjà dañu ñëw ba jour J nag mm. ñu bëgg changer encore ba tax na say am na ci ay nit yi nga xamante ne ils sont ils ou bien elles sont tellement organisées mm-hmm. maanaam trois jours mm-hmm. trois jours yu war a tegle lépp lu ñu war a sol dañ koy teg. waaw am na ñu mel noonu am na ñoo xamante ne une semaine bi une semaine bi ñu a sol. muy dàll muy sakkaame muy lépp yëre. defal la yëpp tegal la. dañ koy am na man ma doon waxtaanal moom nee moom noonu mel. <laughs> am na ah, benn femme ne moom lépp lay préparé. Oh. une semaine avant lépp lay teg xam nga genre yooyu ak kon imagine lu boo ko defee kon yow sa semaine bi dana neex waaw léegi comme li ma doo wax sànq rek maanaam mhm. souvent même boo biddantee sa boo jugee mhm. doo am stress doo stressé wu parce que vite fait boo sangee vite fait mun nga sol li ngay sol rek nga gàddu sa sac dem mais imagine su fekkee ne tu n'as rien préparé nga xëy mhm. war xool looy sol nekk di xëcc euh, armoire bi da ngay mujjee jaxase yi yëpp Euh, finalement doo xam sax mhm. sa journée bi noo koy nu muy nu muy jàll nu muy passé ak noo koy passé mhm. mais aussi boo xëyee sax si sa bërëb liggéeykaay da ciy feeñ parce que da ngay am benn nervosité ba nga xamante moom ngay àndal amaana sa nit day wax sa peut-être sax mhm. euh, jaruta mer nga mer parce que sa journée bi ni nga ko démarré la ni nga ko démarré la te aussi xam nga sucre dafa baax ba tax na tey même su fekkee ne sax euh, danga nga yàqamti yàqamti même bu dee as tuuti sucre ngay jël rek daal di ko Mm-hmm. si kii rek nga daal di ko lekk rek tuuti rek même bu dee pour mm-hmm. dee tax au moins euh, mm-hmm. di nga mën a tenir bon avant ngay àgg sa bërëb liggéeykaay waaw parce que dañuy gis sa boo nekkee ci situation stress wala ngay seetaan xaw kii emporté wu tout cela dañ lay wax ngay utiliser sucre sucre merci beaucoup waaw baax na ba ba sucre baax na ba ci ndox mii aussi baax na ndox aussi waaw baax na maanaam boo jógee nii euh, nga daal jël ndox nga daal di naan ndox bu takki mu doon ndox bu ceet de préférence Mm-hmm. doonay ceet mm-hmm. ndox bi nga xam ne tàngul mais aussi euh, seddul mm-hmm. euh, nga daal di ko nga daal di ko naan guux naan da jàppale ci journée bi donc mu doon ay astuces yi nga xamante ne euh, kenn ku nekk war na ci góorgóorlu bu baax a baax am na avant may continuer daam li nga ci yokk peut-être lu ma si yokk ah mooy que ni pour c'est joie de vivre le nom n'est-ce pas man dama jàpp ne loolu yëpp li ko jiitu mooy le je crois que mbay Babacar mos nañ ko fi wax. Mhm. muy être quitte avec ta conscience. Mhm. si tu es avec ta conscience. man dama jàpp ne amul dara loo xamante ni mën na la ébranler. Mm. c'est tout simplement ça man man loolu laa jàpp. loolu c'est psychologique. li ngay wax c'est psychologique psychologique boobu noonu. Mm-hmm. moom moo lay andi si joie de vivre mais ay actes yi ngay posé. ci sa sa quotidien sa quotidien moom laa lay wax. c'est-à-dire mm-hmm. c'est psychologique gis nga psychologie boobu moo lay accompagner ba yow nga dal nga apaiser. nga mm-hmm. xam ne am na yenn yu bëri yoo xamante ne du la du la du la du la fere. mais xam nga li nga wax nangu naa ko mais. xam nga doomu aadama yi bokkuñu. mentalement. am na ci ay nit leen di euh, déstabiliser yomb na. bien mm-hmm. sûr am na ñoo xam ne nag. waaw moo dëgg. loolu mënut a wax. Mm-hmm. yëngalu leen. Mm-hmm. y a des mun nañ am mun nañ jóg sax ñi am yéene am une bonne journée mais il fi nga wax leen benn kàddu rek. nga yàq seen journée. boobu si am na. ci bind la mm-hmm. Mm-hmm. peut-être nag kenn nit ki nag moom moo war a forger wu xool ni mm-hmm. muy def ba loolu mu mun a euh, denc ci moom avec le temps mun a denc ci moom su fekkee ne nag am na yéene dëgg-dëgg mu denc ci moom parce que loolu de ku ko dindiwul si jamono bi da nga sonn da ngay sonn parce que déstabiliser day uh-huh. ah. des gens yoo xamante ne ils ne cherchent que je pense que ci côté boobu psychologique boobu. il faut que am esprit de fer boo xamante ne kenn du la gaaw a déstabiliser. baax na ci de pour comme nga mën baax na ci baax na ci trop mu nekk lu am solo léegi euh, boo gisee maa ngi doon wax rek dine ndax am na li ngeen ci bëgg a rajouter maanaam dinañ àgg ci poème boobu yëpp. Mhm. maanaam tey ci nii bu ñu gisee ni euh, nga am nga préparé avant le jour J jour J aussi nga ñëw ba nga war a dem liggéey mais am na ñi nga xamante ne aussi demuñu peut-être ci ay entreprise mhm. peut-être feneen lañuy Euh, peut ci marché la ñuy dem xëy wala dem liggéey suñu yaay suñu tataay suñu yaay yi suñu bàjjeen yi ak ñoom seen mhm. ñoom aussi am na euh, anam ba nga xamante ne moom la ñu war a préparer seen jour imagine ki nga xamante ne tey nga war a jóg 4 heures du matin par exemple mhm. war a dem dugg pour dem jaay mhm. donc li gën wala lu baax sa lay wax mooy nga teel a tëdd nga teel a tëdd merci beaucoup waaw ku teel moom fa waaw nga teel a tëdd mais dañoo toll jamono ba nga xamante ne dañuy topp ci réseaux sociaux yi <laughs> yaa ngi comprendre mm. nga war a xëy wala oubien nga war a dem euh, jaay wala nga war a dem ci benn euh, euh, nga war a yëngu ci beneen ngay yëngu ci beneen domaine yaa xam lu mu lu mënta doon mm-hmm. mais nga gis tu passes tout ton nekk ci réseaux sociaux yi ba 3 heures du mm-hmm. xam nga boo ah, toppee réseaux doo wéet mën nga ko topp xool xoolee ko ba 3 heures du matin nga war a jóg 5 mm-hmm. heures du matin du c'est pas du la nga xamante dañ koy conseiller. bien sûr booy ci moom day doon la a yeewu day tu te gaaw a mer sax. Euh, mhm. da gaaw a mer da gaaw a parce que sa nelaw doyut. sa nelew doyut léegi du coup dañ lay wax as tuuti rek nga gis sa bopp. yaakaar ne euh, dara la fekk du loolu. Mhm. donc kenn ku nekk da ci baax aussi nga am nga xam ban heure nga war a tëdd. Mhm. nga teel a jóg. nga préparé wu aussi. Mm-hmm. y a des aussi moom. Mm-hmm. ñoom bu ñu nelawee sax 4 heures de temps rek wala trois heures. Mm-hmm. dañuy doyal sëkk am na ci bind la boobu aussi mais bëriwut. am nañu mel noonu parce que am nañu leen ni man su ma amee trois heures de temps rek mhm. su ma jógee rek toute la journée damay fonctionner am nañu bariwut euh, nelaw waaw waaw bëgg nelaw mais am na y a des ñoom mhm. c'est le contraire man am na ki ma xam ku ma jege lool mhm. moom bu manqué lee nelaw rek day feeñ ci moom ba ci buy wax sax day feeñ ci moom maanaam day perdre mots yi bind la ah, donc boo xasee boo xam yow sa organisme nu nu mel rek. Mhm. jéemal xool nooy adam adapté woo mhm, mhm, pour au moins nga mun a am journée bu mucc ayib. léegi nag boo xasee ba àgg jour ji aussi. defar telle sorte que bul nangu teel a mer. parce que dañoo toll jamono ba nga xamante ne. as tuuti rek nit mun na la cokkaas nga gis sa bopp. ak aussi tout le temps. yow boo bëggee su fekkee ne da nga bëgg a am journée bu neex. day moytu day moy euh, moytu. di yëkkati ay kàddu yu ñagas wala yu métti di ko jëmale nit. Mhm. parce que la ko wax rek dala koy mën la ko delloo. peut-être y a des gens dañoo mhm. y a des gens qui sont doux naturellement. Mhm. boo leen waxee sax du leen métti sax amaana duñ la tontu. mais yow su fekkee da bëgg am journée bu neex. fexeel di tax sorti ko bul yëkkati ay kàddu yu ñagas ay kàddu yu métti di ko teg nit. parce que boo ko defee mun na la ko delloo te bu la ko delloo rek hmm. sa journée mun na yàq boo ko mën a jox ay compliment daal bu ko wax ay wax yu yu ñagas compliment xam nga dafa neex ci wàllu euh, organisation communicationnelle hmm. jàngoon wàllu euh, compliment waaw dañ ciy wax mais ni muy def euh, nit hmm. nag neex wax ji neex. dafay day day xam nga. mais ma xool ma ne Fatou mi ci tuddeel xam nga loolu dèjà yow. sa journée dana neex mais aussi dinga ma ko delloo. waaw mi nga jik jik rek ñëw rek sa fiitu de la <laughs> sa maquillage ba xam nga tey. su ma la nee yaa ngi kon déstabiliser bi ah. waaw waaw waaw mais xam nga yow genre yooyu xam nga ku la ne sa maquillage bu bon ba pare sañ la kaa mais xam nga genre yooyu foo la. non non non c'est une manière de parler. waaw xam nga mais après nga mën a nga mën a yow tamit. a yoo xamante ne yooyu duñ ko wax moo tax fii rek naa mën a jël comme exemple. waaw loolu la. Eh, plateau bi am na ko fi maquillage baaxul daal. ah dégg nga ko mu ngi mu ngi gën a. waaw waaw mais tey moom man nag tey moom dama sama dama préparé psychologiquement. kon merci pour le thème alors nga nga ñëw ba pare rek sa genre revue comme on est collègue nga ñëw ne waa. <laughs> ma génne exemple la. <laughs> waaw waxul daal loo xamante ne dina la métti ay ay mots yoo xamante ne boo demee moom journée bi boo defu attention. boo dëgërul rek doo mën a doo <laughs> doo mën a parce que crise assise dañ boo xalaatee ne yow bu ñu la ko waxee mën na la déstabiliser waroo ko wax keneen ki pour yàq tamit. Euh, mm. li nga xamante ne mooy journée merci beaucoup mm-hmm. merci tout à fait Fatou crise assise loolu lañ maanaam boo bëggee passer bonne une bonne journée. Mm-hmm. fexeel yow nga dégager lu lépp looy wax rek na rafet. Mm-hmm. parce que yow su boobaa da am ay compliments après yow it. Mm. parce que boo ko boo koy def rek dañ la koy delloo. foofu noonu benn mm. précision rek mais xam nga parfois. Mm. am na genre nit ñoo xamante ne comme ça fi lañ mel dañoo bëri caaxaan dañoo bëri tooñ comme man. parfois mën na la def benn affaire wala mu wax la ni nga ja nga jàpp yow mi sa bopp. yow yaa ngi jàpp ne. Mm-hmm. peut-être kii elle ma elle m'a mal parlé wala lim ma def. waaw ku nekk ak caractère genre gomis yi mën nañu genre gomis yi mën nga ñëw mu def la loo xamante ne. te wallaahi nga bëgg a jooy bu fekkee ne moom noonu la mel naturellement da lay wax loo xamante ne pare na ca damay jël sama exemple parce que sama sama sama bopp laa mën a wax. man mosu an voilà man yow yow moom yow moom eh, yow comprendre voilà dama bañ a kii nii rek xam nga ñoo dama bañ a génn say. <laughs> waaw mais au moins comprendre en fait man genre yooyu da ngay jël pour kaf. comprendre nga mm-hmm. ah yow maki maamu jaabi gasam sa maquillage bu bon. jaajëf saaxa nee moo ko wax ci régie <laughs> yow mi di wax. yaa gën a pire <laughs> noonu nga mel. waaw d' accord waaw d' accord léegi léegi moom la waaye da toutes les façons man. je me dis que ni ah, waxu ko ah, non non man je me dis que ni waxu ko je me dis que ni waxu ko peut être yow yaa ko wax yow ko jotal parce que comme on dit que ki wax man lay attaqué mu may attaqué. ki wax man tamit wax na man tamit noonu la ma wax tamit kon nangu laay def rek ma préciser li may wax foofu mooy que am na y a des gens yoo xamante ne on se euh, comprend des fois dañuy wax loolu quoi dañuy foo wax ji man naa ah maa ciy dugg après foofu dañuy foo rek nii mais euh, du loolu euh, du loolu lañ jàppal lañ jàpp lañ jàppal nit d'accord mhm. loolu la des fois nit ku nekk ak nature am daa def yoo Fatou kenn ku nekk ak sa nature dëgg la mais man tricc assistant wax man euh, ne ma fi dine diw moo def li wala yàgg yëpp ci cadre kaf la xam naa lépp lu ñuy mhm. waxtaan ñun ñëpp waa mhm. bien sûr man tricc astuce lay wax mhm. maanaam tey dañ la ne su fekkee ne da nga bëgg am journée bu neex fexeel ngay wax ay kaddu yu rafet dañ la koy delloo su boobaa tu auras une bonne journée Mhm. mais boo yëkkati ay kàddu yu ñagas mhm. di nga daje ak sa doom bàjjen mu delloo la ko waaw loolu moom peut-être mun nga daje ak Mbaye Babacar amaana nga wax ko mu bàyyi mu mhm. jàll kenn kii mën na ko supporter keneen mën na ko bañ a supporter ci journée bi mun nga ko def nga tooñ diw exemple wala nga yow ci kàddu kap sa xam nga kaay ma wax la dara nga reetaan bàyyi mais da nga dem wax ko keneen koo xamante ne du la bàyyi noonu ba ci kaf wax ju fet dafa neex ba ci kaf dafa neex xanaa xamoo tey euh, am na ni ngay comporter rek di nga neexal journée nit ki te mun naa la xool faatu ma sourire rek et je n'ai même pas parlé je n'ai même pas prononcé un mot mais sama sourire mm-hmm. mun na la yow mën mm-hmm. a tax sa journée neex. c'est un te yow sa sourire boobu ba ma ko dellooy rek. un sourire expressif. man sa sourire bi ba ma ko delloo nga delloo ma ko. Mm-hmm. yow aussi nga am benn sourire ci man. sama journée mun na neex parce que dinaa ne tey kii. wonuma kanam ba nga xam te ne. ma ni lan laa ko def. lan ko qu'est-ce que je vais faire lan ak lan laa ko def Babacar loolu yemul rek ci mm-hmm. yemul rek ci euh, maanaam tey nga ma gisante ak yow mm-hmm. nga nekk sama sama mbokk jullit nga mm-hmm. nekk sama mbokk nit euh, ma ubbil la sama kanam mu leer wala ma reetaan la wala ma wax la wax ju neex wala ma wax la wax ju nooy yooyu euh, au delà de l'aspect Mm-hmm. mais dafa am beneen aspect bu ci nekk sax boo xam ne moo mm-hmm. gën a am valeur mm-hmm. te nit ñi duñ ko bàyyi xel muy aspect bi nga xamante ni yàlla daf la ciy bindal ay tuyaaba tey euh, yonent bi daf ne wax ju neex sarax la sarax la tey su ma xëyee man saraxewuma ma dajeeg Fatou Diouf wala maam wala Safietou wax leen wax bu neex dañ may bindal tuyaaba comme ku xëy saraxe. Mm-hmm. na wax bu neex moo tax nga dégg ñu naan wax ju neex sarax la. Mm-hmm. le fait que ma ubbi la sama kanam yaatal la la sama kanam. Mm-hmm. Euh, ba nga am ci mbégte. loolu dañ ma ci bindal tuyaaba. nga gis ne kon diggante nit ak nit. relation humanitaire bi nga xam ne moo war a dox ci seen diggante yéen ñaar. relation humanitaire. diggante nit ak nit nga xam ne da ko war a traité traitance boo xamante ni euh, mag ñi. maanaam niveau boobu lañ tolloon. dañ la daan xool ñu gis na yow nit nga nit. da ñu xool ne yàlla moo la bind te yàlla lu mu bind nite ko ci gënal. Mhm. wala xadd karam naa banni adam mhm. maanaam teraanga jooju la yàlla jox. Mhm. en tant que nit. moom lañ lay jàppee. dañ lay fonk. Euh, maa ngi koy expliquer benn jour ci benn euh, paa bi nga xam ne ndeysaan dafa demoon ba feebar. mu dem mu faju fii après dem bitim réew di faju ji. xam fii par exemple comme. nit ñi boo demee hôpital ni lay traité. Mm-hmm. macha allah. mais moom nee na bi mu demee foofu ki ko doon faj tubaab bu jigéen bi ko doon faj nee daa dem ba yaakaar ne daf ko est-ce ko. ndax tellement que traitance bi ñu koy def. Mm-hmm. ndeysaan di la di la di la. Mm-hmm. xam nga am na ci ay médecins di la sourire di la. même fii ca kaw. même fii ci Sénégal am na médecin mel noonu ba nee na moom dafa yaakaar ne sax. ndax ndax su noobu ko. fekk loolu. <laughs> mais relation humanitaire bi dox ci diggante nit ak nit. Mm-hmm. te pourtant loolu ñun ñoo ko war a gën a mën. Mm-hmm. mais ndeysaan da ngay gis euh, ku euh, euh, nga xëy sax romb tafaango mu lay jaay affaire. Mm-hmm. fas kanamam. nga koy nuyu mu lay fay bakkan. ay yoon te fekk du loolu maanaam nit ak nit. koo gis rek da nga ko war a. da nga ko war a teral ci sa ci ci sa daraja. xam nga ba ci sourire bi sax sourire bi xam nga kii ci sourire bi ma jox la Sophie baal ma mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ba ci sourire bi sax xam nga tey yont bi day jàngale maanaam tey sourire mm-hmm. charité la sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale kon mu doon charité mu doon la nga xamante ne yow yëkkati un franc ko nit ki mais yàlla bindalal ci tiyaaba donc mu doon la nga xamante ne kenn ku nekk boo koy def rek je pense boo sourire boo xoolee diw nga reetaan sourire moom aussi dana la ko delloo te bu la ko delloo rek yow loolu mun a tax nga am journée bu bu bu mucc ayib. bien sûr waaw Safiatou am na beneen point bi ma bëgg a wax. en attendant dama bàyyi la euh, bëgg naa wax lecture bi mhm. sport bi. ñoo yëpp day participer ci nga passé ah, li mu wax laa bëgg euh, apporter juste rek benn précision am na am na ni mu ne par exemple nga romb xaw ma diw nga nuyu ko mu fas kanamam mhm. dis-toi que ni gis nga dans la vie am na nit ñoo xamante ne li ñuy doxee ñoom rek ñoo ko xam y a yoo xamante qui ne qui ne qui ne savent pas se confier am na nit ñoo xamante li leen métti dañ koy téye dañuy noppi et que loolu parfois parce que nit ñi ñoo wóoroo parfois da nga naan man kan laay confier wul mhm. à qui faire confiance est-ce que nga téye ko nga téye naka ba ku la nuyu doo ko doo ko. mais yàlla non waxuma loolu de je pas dit ça man je dis que. am na nit ñoo xamante ne. Hmm. parfois parfois ni ñuy doxee. ni ñuy doxee ñoom rek ñoom ñoo ko xam. fekk daam lu ñuy dund ne am na ñoo xamante ni mënuñu mënuñu wax seen nakar y a des gens yoo mhm. wax mais am ba ko nuyu bañ mu euh, bañ ko fay de nooy mhm. nee na wax waxu waxuñu bañ ko dafa am ñoo xam ne euh, non fi may waxee mooy dafay am ñoo xam ne par exemple tey maanaam dara naqariwu la mhm. dara amoo problème mais par exemple da nga ma bëgg a jaay benn am na benn folie de grandeur. bu mhm. nekk ci yow foofu laay waxee. non yow yaa yow yaa yaakaar ne kii dara naqariwul parce que de bul wax bul xool nit ki mu solu ba jekk. Mhm. et que nga ne carrément kii amul problème. gis nga nit. mën na toog am problème mais soo amee problème yow kooku defu la ko. nga koy nuyu non attends société bi dafa dafa kii damay bañ non damay bañ parfois nga mm-hmm. mere nit te pourtant wallahi wal azim kooku si boppam. yow mm-hmm. da ko war a dimbali. Mm-hmm. yow ki nga ki ngay romb nga yaakaar ne da ko war a mere moo tax léegi nit ñi dañoo war di gën di mën a di tamit nga xamante ne di di di juger merci maam nga di gaaw a juger doomu aadama bu ko defee nga xamante ne yenn yi nga xamante ne da nga jàpp ne kii dafa gaaw a mer peut gaawul mer. Mhm. ku nekk peut-être yow yow lim la wax. wa mu métti la. bu ma ko waxoon Fatou mais comme que montré kooku xamul mhm. moom lu nekk ci moom mën naa mu métti mhm. ko ma wax ko Fatou te du ko métti moo tax parfois ni ni nit ki di waxee ak yow peut-être fa fi nga koy jàppee mën na bañ a doon benn tamit. d'accord oh, waaw ñu bañ ci debaa rek léegi li may ci wax rek mooy vu que temps bi xoj nañu te ci ngir nga passer une bonne journée sport bokk na ci Mm-hmm. lecture bokk na ci yaa xam. waaw ki di kii da xam looy liir peut-être bu dee jullit nga nga ne alquran laay liir bu dee euh, catholique nga nga ne bible ngay liir. Mm-hmm. wala peut-être aussi mm-hmm. am na yeneen livre yi nga xamante ne. bëgg nga yokk sa xam-xam. nga liir ko xam nga. Euh, sport aussi mhm. divertissement vu que temps bi xaj xoj daal faatu mun moo ko yaatal mais loolu yëpp na téléspectateur xam ni yooyu bokk na ci point yi nga xamante ne mhm. waroon nañ ko waxtaane di la remercier bu baax a baax di remercier Sophie mhm. ak aussi Mbaye Babacar ak téléspectateur <laughs> yi yëpp téléspectateur yi xamoon yow wóor na ak Mbaye Babacar <laughs> waaw <laughs> ñu ñëwaat ci plateau bi